ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéen ay suivre bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy def taxaw seetlu ci actualité wax ci li nga xamante ne nii mooy CAF Awards CAF Awards di benn événement bi nga xamante ne nii mooy distingué maanaam sargal ñi gën a xarañ ci wàllu football ci at bi fii ci Afrique at bi nag Sénégal mooy dalal ndaje boobile ñu war ko amal ci. talata juróom-ñetti fan ci weeru janvier 2019 ci centre international de conférence Abdou Diouf bu Diamniadio dëgg la dañuy rafetlu initiative bi parce que Sénégal ku ko xam-xam ni dëkku football la dëkk la boo xamante ni ñëpp dañu bëgg tàggat yaram boobu di football donc fierté la waaye doon gën a am solo événement boobu la ñu dalal ko ñu jox ñu ko bu fekkoon ni defuñu ci alal du takku parce que dama leen di xamal gala boobu nga xamante ni nii confédération africaine de football muy CAF moo ko jox Sénégal réewum Sénégal def na ci lu mat 1 milliard de francs CFA dama koy baamtuwaat 1 milliard de francs CFA le Sénégal def ci événement boobule. ñu bëri dañu yaakaaroon ni 500 millions la waaye 1 milliard la. dinañ leen détailler montage financier bi naka lañ ko amalee et eh, naka lañu def ba mu yegg ci sombu takku bobu non nga xam amalon amaloon na njëriñu réew mi ci yenen fan ci yenen domaine comme ni mako waxé légui rek objectif bi du ŋàññi organisation bi parce que ñun ñëpp duñu bëgg football waaye dañu né Sénégal amna yenen priorité yeneen domaine yu gën a am solo yoo xamante nii war nañ fa mun a def xaalis mun a jëriñ doom doomi sénégalais yi au lieu que ñuy jël lu mat benn milliard di ko def ci benn événement boo xamante nii du durer sax juróomi waxtu yu mat maanaam lu matul sax juróomi waxtu nga yàkk ci un ci événement boo xamante ni ñun sax wóoruñu ba xam suñu doom bii di Sadio Mané dina jël li nga xamante nii mooy trophée bi dara wóoruñu si leerul sax dëkk yi nga xamante ne nii dëkk yu émergent lañ am nañ développement développé nañ ñooñu mën nañ ko def waaye ñun ñu dëkk dafa am lu bëri loo xamante ni dañ ko fi war a def dañu am ay priorité dëkk bu pauvre lañ moo xam ci wàllum njàng bi ak jàngale bi moo xam ci enseignant yi nga xam ne ñu ngi def grève suba góor guddeeg bëccëg nga dem ci région yi ay xale ci ay abri provisoire la ñuy jàngee ay néegu ñax ak ay yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ni war nañ ko mën a def koppar ngir mën a ñoŋal dundunu ay sénégalais ngir mën a ñoŋal dundunu ay xale yoo xamante ne nii seen avenir dara leeru si mais au lieu ñuy def loolu lépp combler li nga xam ne mooy manquement yooyu yëpp ñuy yàqate un milliard ci benn événement boo xamante ni nañ ko wax amalul njëriñ Sénégal ci bépp fànn nag. boo xoolee même sportif yu mag yi nga xam ne ay patriotes lañ d'accorduñ ci yàqum xaalis googu noonu d'accorduñ ci Sénégal yi mu dalal li nga xamante ni mooy événement boobu noonu yàggul dara dégg nañ pap Diouf bi nga xamante ni moo président Marseille ñaawlu li état bi jël lu mat 500 millions de francs CFA parce que moom pap Diouf dafa jàppoon ni 500 millions yi kese le Sénégal def ci li nga xamante ni événement boobu d'ailleurs ci sortem pap Diouf mi ngi doon wax naan naka état du Sénégal mën a joxe juróomi millions

waaye yaakaar na ni Pape jouf bu yëgee ni somme bi ëpp na 500 millions yi mu doon wax sax yaakaar na ni dina gën am naqaru xol dina gën a am lu ko métti parce que Sénégal dina ci def double bi maanaam 500 millions yi Pape Diouf waxoon double bi dinañ ko ci def maanaam muy 1 milliard yi ma leen wax. li nit ñi war a comprendre mooy gannaaw bi ko Macky Sall recevoir fële nga xamante ne nii mooy palais présidentiel kii di président CAF bi di Ahmed Ahmed bi ko Macky Sall recevoir Macky Sall ci boppam dafa engagé wu génnee lu mat 1 million de dollars maanaam lu toll ci 600 millions de francs CFA jëndee ko ticket d'entrée parce que ticket d'entrée boo ko déggee mooy dëkk bu war a dalal CAF Awards bi événement bi nga xam ne mooy sargal footballeur africain yi gën a xarañ ci at bi dëkk bu ko war a dalal dangay fay li nga xam ne mooy caution boo xam ne da nga koy fay confédération africaine de football muy CAF pour am droit accueillir organisation wu événement bi loolu lañ naan ticket d'entrée donc ticket d'entrée boobu bi Macky Sall recevoir Ahmed Ahmed daf ko promettre jënd ticket d'entrée bi ci somme bu toll ci un million de dollars maanaam six cent millions de francs waaye bu weesoo somme boobu noonu nga xam ne Sénégal da koy jindee ticket d'entrée boobu noonu Sénégal dafa war a jël en charge li nga xam ne mooy frais d'organisation wu événement boobu noonu frais d'organisation événement boobu noonu boo ko calculer mi ngi toll ci 600 mille dollars boo ko xaymaa ci franc CFA muy 350 millions de francs CFA. Boko vous ak ticket d'entrée bi Sénégal fay di 600 millions yi nga xamné mom moom fay pour obtenir organisation Si vous boko bolé ak frais d'organisation yi daf lay jox 950 millions de francs CFA manam 1 milliard yu manqué juróom millions. waaye des na ba légui instance dirigeante de football africain bi CAF confédération africaine de football ci cahier de charge manam charte yi nga xamanteni ni mo teunk li nga organisation CAF Awards bi bi nga état du Sénégal dañ préciser dañ ci CAF ci mo impossibilité exploiter événement bi ci ay commercial manam CAF possibilité en am utiliser événement bi sponsor def ci ay publicité am te lépp lu ci jugee ci ay xaalis kaaf ci boppam moo koy moom Sénégal lu ci am dara maanaam Sénégal moom mooy jël charge yi état du Sénégal mooy jël charge ci organisation wu événement boobu noonu mais kaaf ci boppam moom produit bi nga xam ne mooy CAF Awards bi nga xam ne produit la ko def moom produit la bu ko neexee jaay ko ay annonceurs yi nga xamante ne nii ñoo nekk fépp ci àdduna def publicité am lépp lu ci tikkee ci koom-koom moom ko ci gàttal pour mu gëna a leer tey bu amé bénn société publique sénégalaise bi nga xamante ni dafa bëgg profiter ci événement bobu nonu jallale publicité par exemple day jaar ci keesu kafi fay pour am droit bobu nonu manam lolu beneen xaalis la tamit bu yokku ci organisation bi te lolu mo am sax instant bi ni manam chaîne bi di RTS tay pour couvrir événement bi nga xamné ni moy mooy CAF Awards bëgg ci profiter jaarale ci ay publicité RTS ci boppam day fay ay droits de diffusion fay ay droit yo xam mo koy mën permettre bis buy diffuser événement bobu noonu am ay droit ay frais yo xam ne daf ko war fay kaf te yooyu ay millions la c'est des millions loolu motax charge yi di gëna yok yokk yoyu yooyu boré wuñ ci frais de promotion yi nga xamante ni moy publicité yi annonce yeeg yëpp yi nga xam des day laaj xaalis te ñun ñoo jël en charge suñu xaalis loolu motax organisation kaf CAF Awards bobu noonu tollu ci 1 milliard te sax boo moywul dina ko romb li ci metti moy Sénégal bu fekkon sax day gagner dara ci investissement bobu noonu manam ci xaliss bi mu def ci organisation CAF Awards bi sax ñu mëna comprendre waye Sénégal gagné wu ci dara. non seulement suñu doomi réew bi di Sadio Mané ay chance am wuñ pour mu jël trophée meilleur joueur africain bi même bu fekkee ni ñu ñëpp moom lañ koy yéene bu ñu sañoon mu jël ko ndam ni des bi Sénégal suñu yéene mooy mu jël ko waaye xam nañ ni ay chance bëriwul pour mu jël ko waaye itam amul dara luñ ciy gagné ci wàllu publicité ci wàllu sponsor ak ay partenaires lépp lu ci tëkkee ci wàllum koom confédération africaine de football moo koy jëriñoo. li ci gën a ñaawlu mooy ci mbir yi yëpp bi nga xam ne moom dénk wàllu tàggat yaram muy Matar Ba ñu ko interrogé laaj ko ci affaire boobu noonu li mu wax mooy président kaf bi di Ahmad Ahmad moo sàkku ci Macky Sall gannaaw bi mu ko recevoir palais audience bi ne ko dafa bëgg Sénégal dalal événement boobu noonu ci noonee la ko président Macky Sall joxe kàddoom ba après la ko kaaf envoyé benn lettre pour xamal ko cahier de charge yi maanaam frais yi yi ma leen wax sànq yu toll ci six cent millions de francs CFA. loolu lu muy ndur mooy suñu ñàkk am fulla lan moo tax ñun Sénégal bu ñu proposé loo xamante ni arrangé wuñu rawatina bu jógee bitim réew. duñu am fulla ak mat gu tolli ne arrangé wuñu duñ ko def waaye dañuy accepter gëmm ànd ceeg nag ñàkk fulla gu mat sëkk alors que jamono jooju étudiants yi dañuy toog ay bés di taali pëna syndicat wu wér-gi-yaram yi di décréter ay grèves yu dul jeex enseignants yi bàyyi fa classe yi nekk di grève ñoom itam état bi tànqamdu gëmm ay bëtam di leen faale alors que saa yu benn proposition jugee bitim réew rawatina surtout loolu yoo xamante ni arrangé wul suñu réew yi dañuy gëmm gumba toxloo sëgg ci d'accord ci comme ay jaam. malheureusement nag fii ci Sénégal suñu problème mooy xamuñu priorité tey xaalis boobu noonu muy 1 milliard yi même buñ ko deful ci yeneen secteurs yi mais nañ ko def ci biir sport bi ci biir tàggat yaram bi xaalis boobu au moins mënon na lancer benn projet boo xamante académie sportive lay nek mo xam mu académie sportive ci walu football ci walu basket wala ci benen tagat yaram bo xamanteni ni amuñu ay moyens. bu loolu itam mais mun nañ ci financer suñu club yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal pour que ñu mun a assurer seen yenn dépenses yi parce que tey ñëpp xam nañ ni club yi nekk Sénégal moo xam ci football moo xam ci basket moo xam ci yeneen discipline ñëpp xam nañ ni président de club yi ñoo ko yor ñoo ko gérer comme ay bénévolat seen alal la ñuy jël def parce que yu ci bëri amuñu sponsor amuñu dimbal bu jugee ci état bi mais xaalis bobu mënoon a dimbali président club yoy noonu. mais comme niñ koy waxé rek sa su suñu njidi non seulement amuñu vision politique générale waaye itam amuñu vision politique sportive parce que xamuñu priorité xamuñu alal bu né këtt na jonn fan lañ ko wara def. donc galaawu CAF Awards bi nga xamanteni ni mo fi wara am mardi juróom-ñetti fan ci wéru janvier 2019 fi nga xam moy centre international conférence Abdou Diouf bu Diamniadio mënon nañ ko organiser benen dëkk parce que ñun amuñu xaaliss bu ñu yàq waaye tamit xëy na peut-être ab moyen la pour nelawal sénégalais yi comme niñ ko defee ci combat Balla Gaye beeg Modou bi parce que ñi ngi ci veillu élection présidentielle te ñoom li leen intéressé mooy nelawal sénégalais yi ñu nekk divertiru di nekk ci yenn activité yoo xam ne da leen di fàttaloo li nga xam ne nii moo gën a am solo muy essentiel xëy na peut-être moyen la tamit pour état bi tamit nelawal sénégalais yi donc foog sénégalais yi yeewu aussi ànd ak seen xel ba yenn yi bu ñu leen yóbbaale dëgg la divertiru neex na dalal xel baax na waaye tamit priorité intérêt Sénégal dañ ciy bàyyi xel saa su ne donc jàngatu tay bi loolu la woon ñuwel actualité bi ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal ci taaxirlu bi di leen jox itam di daje beneen yoon ak beneen vidéo ñu ngi leen di jaajëfal